moomee eh, moom la waaw moom la ndeysaan moomee eh, mooma eh, mooma yow mooma ndeysaan way da illa waaw mooy ah, booy soobu nga ñëw ah buy soobu de buy soobu dafal nànk soobu taxawal dafal nànk de buy soobu mooy sunu booy baa ngi nii waaye kañ nga dégg ah kañ nga déggee sunu booy ñii ay nappkat yu cosaanoo ndar yu réeroon géej ñu gis leen seen juróom benni naataangoo yu dëkk caaru géej te réer boobaak léegi ëpp na weer mëneesula wax loolu ci ñoom ñetti nappkat ñoo njëkk dem samdi fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre ñibbisiwuñu ba ca ëllëg sa ñetti gaal dépare ci tefesu caaru géej ngir seeti leen ci benn bi ci la Pape Malick Diop Lamine Ñing ak Duudu Kan nekkoon ñu ngi fi jóge altine fukki fan ak juróom ñett ci weeru novembre boobaak léegi ñu ne mër mu ngi tudd amadou diop ñu koy wax modou fall ñu fekk ko caaroy géej ku ko xool xam ni am na ay guddi yu mu nelawul muy lu jaadu ndax doomam pap diop dafa bokk ci nappkat yi réer géej bi mu yëgee ni doomam dem na géej am ñu mu seeti te moom ñëwul modou fall jël gaal dem niiti ko waaye feebar dab ko ci biir. dafa bokkoon ci ni seeti woon te moom dellu soogul waaw ah. man ah ñu ne wax ma léegi sa ëllëg sa ñu sol essence bu ñu solee essence ñu dem seeti man nag ci biir gaal gi bon ma feebar mais li ma bëgg daal ci drague bi seet bi daal aw ma ko aw ma ko ni ma ko bëggee ndax man si feebar naa. kóolute day sas nit am na ñu nekk suma ginnaaw te manuma jàmbat may forcé di forcé manuma leen wax dara it may forcé mais daal xam naa daal maa ngi sentir sama yaram loo xam ne ni daal bokk ci waaw si laa daw ba mu neex ma ba ci biir géej siggi naa lu mat deux ñaari soixante amoon naa lu mat ay soixante huit kilomètres yooyu ca boy yi ñu ngi nekkoon ay vingt et un kilomètres amoon naa soixante huit kilomètres gisuma len ñu yegg wacc ñun ñetti gal set set gisu ñu ànd ma ne leen man dal <tsk> nan retourna dal gaay wax ma nan retourna parce que booba li yegg man mako xam. pap malik Diop am fanweeri at am ben jabar ak ñenti dom yo xamni ni ki ci gëna ndaw ñaari wér rek la am doon liggéey ci gaal yu mag yi dafa ñëwoon vacances ci tabaski ji waaye bi mu yëgee ni ay mool ni moom réer nañu mënul téye boppam Yayam ndey nogay Wad, ñu fekk ko këram mu toog ci digg ëtt bi di dunde yaakaar xam ne ni dimanche fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre la gis doomam dimanche si guddi mun si laa ko mujjee gis fekk boobu ma amoon ay gan ba muy tooñ gan yooyu sax tooñ na leen ba mbalal leen benn tantam léegi ma demee di ko gunge jëna bi may oññeeku moom laa daje mu ne day seeti gaayam yi ba xam nan la def pour bu nu xëyee mën a seeti gaal gale te gaal gi dem yàlla xam ne na xamu leen sax benn mool lañ ci xam mais ñoom ci seen xolu yërmande mu moo tax ñu dem mais muy dem ma dajee moom ci angle bi ma ne ko waa pap foo jëm guddi na de ne ma yaay dama bëgg a dem xooli sama gaay yi ba xam subaa nañ la ñuy def mu ne waaye yow soo na de doo wëññeeku nga dem tëddi nelaw mun ne waaw mu ñëwee dinaa nelaw ba ma koy tooñ sa nankaan su pharmacie bi tëjul woon dinaa la jëndal doom yoo xam danga koy naan pour nelaw ndax moom sama xarit la sama kaftukaayoo la boo nu fekkee ni danga naan saruma yaayam ndax maa moom ay morom lañ ñu waxante foofu ko ma jéente foofu mu daal di dem boobu laa ko mujjee gis muy dimanche boobu dellu si waat na ci kër gi waaye boobu fekk na yaayam tëdd jabaram la mujjee gisanteel ci altine ji daf maa yéene ma day dem seeti gaal bi réeroo si lënd bi ma ne ma mu ne ma may ko ndox mu naan ma may ko mu naan mu ne ma paas ko butéelu ndox bu sedda mu sotti ko si bunt bi mu ne naa defar doomam bi euh, lii solo ko yére pour mu jànge si laa ko solal bu muy dem mu ne maa ngi dem mu ne ko waaw mu génn dem. dem bu amugul dellusi waaye ku réer géej lan la mën a dund sëriñ Abdou Wade di ci Pape Malick Diop dund na lu ni mel am na fukki at ak léegi. jour ba ñu njëkkee paan si géej des si géej man ak sama ñu taawu kër bi ñoo àndoon ak sama benn rakk daanaka kër gi yëpp yàlla moo ñu suturaa rek mais bu bu waroon bu ma bu mettee woon noonu yàlla def ne bu doon dal doomu aadama tey sotti bu boobu noonu yàlla ñu boon si defal xéewal mais boobu bu daloon gisatuma beneen buy dal doomu aadama bu ko gën a métti parce que moment boobu ñu ñëpp ñoo ne woon si gaal gi sunu famille yëpp paay dañ daa taxawal julli géej di jooy kàbbar ba pare ñoom ñëpp seen rongoñ ñuy sutti seen rongoñ ñuy sutti ñun moment boobu nag ni ñu ko daa dunde si géej parce que dañoo seroon mbaal jën wi guddee dox man sama kaa bi may dal jën wi guddee dox mais li lay xamal ne metti na ñun dañoo daboon géej xam nga mool tam bu dabee jën rek day day kii maanaam day soxla jën wi daal moment boobu dem nan guddee ñoo ñoo dab jën wi maanaam heureusement ñu da jàpp ñu daboon jeey bu weex jamono yooyu boo ko teeraloon rek maanaam xéwal la quoi ñu toppa jën wi biñ koy toppa boobu ndaw mi mu ñuy yéegal biir géej yoruñu woon GPS yoruñu woon parce que jamono yi sax GPS daanaka kiigul woon comme nii léegi ñuy toppa jën wi moment bi ñu koy toppatam temps bi mu ngi doon buriyaar mu ngi yàqu géej gi mu ngi yàqu mais li naan jamono yooyu xale xale li muy tiit du bari boobu laa gënoon a nekk xale kene nii léegi ñuy seddi mbaal di xëcca boobu sori nan léegi ma ne ñii comme ñu ngi seddi te maa ngi seen lampe phare bi am na am ko sama bët di maye. ma ne gars leen ci mbaal man ma jël repère parce que temps bi ma gis baaxul day yaaxu dem rek taxaw fixé phare bi fixé phare bi phare ba gars taru mi bi mi di rek ma taal machine bi. fi ma fi ma sama bët mujjee may ma daw si ma daw ci ci si yoon woowu man ngaa jàdd nag tuddoo ko yëg parce que xamatoo foo jëm ma concentré wu concentré wu concentré ba fajar gi di xar amuñu kii bu baax ma ne kon gars yi bàyyi nañ yoon wi de ñu ne waaw après bi bër setee ñuy gis ndox ak asamaan rek parce que amaana moment boobu bi may daw sax ni ma bàyyee yoon wi man damay daw biir géej te doo ko xam temps bu yàqu moo demee noonu ci géej day bay ñu takk say bët ngay daw loolu ndimbalal sunu borom rek moo fa mën a ñëw léegi ñu daw daw daw daw ba essance bi des moitié ma ne gars yi daw essance bi yëpp du xel parce que mën nañoo taxaw boto romba ñu ñu soxla boto gi duñ fa mën a dem léegi nañ leen taxaw ñu xool ne nun def après si leen taxaw bi ñu taxawee finaan guddi googu gisuñu gaal gisuñu boto ñu finaanaat gisuñu gaal gisuñu boto léegi ma ne gars yi nan commencé tiri mbaal yi yàq mbaal mi jël buum yi yow saaku suuf yi nekk si biir si gaal gi ñu bàyyi ko mu dem géej pour gaal gi dox bi yeex après léegi si lan bàyyi loolu mu dem géej saaku bi noonu lan toogee daanaka semaine bi yëpp yàlla def jëkkër kii moo ñu jàpp ñoom ñoo yoroon ay jumelles parce que jamono yooyu ñoom seen seet bi comme ñun li ñu dal métti na méttiwaay boo xam ne ñuy xalaat suñu waajur yi des fii noo ñoom bu ñu deful effort dëggal loolu suñuy waajur mënuñu kaa dunde si àdduna kon waa dëkk bi taxawaay boobu lan taxawee ñu wut ay jumelles yoo xamante ni maanaam foo toll rek bu la jigee rek war na laa mën a séen dégg ñuy joow ba suñu yàgg booy bi gën a ndaw ci gaal gi moo jékki-jékki ne li may séen muy nëbbu ak feeñ jóge suñu côté penku dafa mel ni gaal la ma ne ko ah, ne ma waaw fekk ñoom boobu séen nañu bu yàgg mais moment bi ñuy daw di ñëw ci ñun boobu xëcc na xëcc boo xamante ni ñoom ñun bi leen di tàllal loxo boobu ñoom ñee ngi naan gaal gi la ak ñii du ñi naan du gaal gi heureusement si dañ daw a daw a daw ba taf ñu léegi muy gaal gi nag. man mom diiran bi ma def ci geej yëpp joyuma defuma dara mais bima gal gi tafé ci geej mom dama teud ci mbal mi joy ba sama xol da mom wërsëg bi mu am ba génn ci tolof-tolof yooyu njaboot gi maase ni jarbaatam bi ak ay naataangoom dinañu ko am ba dellu si ndax yaayu pap job ak papam jàpp nañu ni def lu baax am safaan bi amul pap mom, yal na ko yàlla defal sutura rek bu dee mu ngi ci jàmm rek ak li yàlla wax ci waajur pap doxale na ko ba mu mat te man sama mbàmmeel laa taxaw du lii moo tax may kay sosal di ko waxal xeeti baax baaxam déedéet lii ma lay wax ci sama xol laa ko tibb te man ku gëm yàlla la man pap duma ci saalit yor ma jullee dinaa yor sama kurus ñaanal ko sama doom ji bu dee mu ngi ci kaw suuf rekk bu dee mu ngi ciy loxo rekk yalla ma ko yalla delo ci watal mo ñi mu andal ñep ndax pap ay qualité mu suma kay wax tay fa lañuy ñuy yendu ci diggante doom ak nday pap da di woon sama xarit pap da di sama àndandoo paap dafa rus papam ba duñu lo wax ku ci nek li nga bëgg wax sama morom ci man nga fay jaarale pap jop ci moom la gis xalé bo xamna ni amul poche xamul bànk soxnaam mu ngi ci biir pap su jógee géej ñeenti weer lay am boto su ñëwee noppalaku noppalaku tuuti su demee ba war a faye ko payooram mu ngi koy xamee ci ci biroom mais su ñëwee fii xamatul payoor mu toll su fekkee papam ñëwagul daf koy denc ba papam ñëw wala bu ma ko joxee ma ne ko dencee ko ba sa papa ñëw su ko dencee ba papam ñëw mu jël xaalis bi ak nu mu mënti toll te xaalis lay doon macha allah noonu la koy jëlee teg ko suñu diggante su nekk lii nag mu ne lii laa faya ko wan ko ginnaaw billaahi wallaahi tàllaay billaahi wallaahi tàllaay nii la koy tege dem yoonam lu mu ci lek wala lu mu ci nan wala lu mu ci maye daf kay ñaan so mu ne yaay nañu am jamm rek nekkal ci jamm rek xalé nekk ci jamm so bege rek man damay bekk ko jàkkaarloo sa yaay ci xalé bu tok noonu nankaan feeg demoo màkk aw ma ko ma lu neex lol de jëfe na ci xalé yi waaye yéene naa mu ñëwaat fekkaat ma fii ci kaw suuf yóbbu ma màgg te yàlla dina ma ko defal ci sama xelaat lu am nag mbiri suñu borom la waaye ñun koy ñaan yàlla. mas na ñëw ñu toog ba yàgg nii mënuma per mënuma mënuma dama bëggoon ñu waxtaan tuuti mën nga waaw mën nga ba jàmm ñu jàmm dafa am koo xam ne nii daan sama maam lay àndal samay ma samay maam ay moroomam lañ. ay morom lan ak samay maam te fi mu nekk nii tabaski jëb si na te fi ne ni père mënuma kaa seetaan ma ne ko ñaata lañ mu ne ma xaw ma ñaata lañ daal ma ne ko ah, ma lan mooy xalaat mu ne ma fi mu nekk ni daal depuis booba ba léegi nii daal loolu moo nekk sama bopp ma ne ko comme nan di ko xool ne ko comme nan mu ne ma dama bëggoon daal kenn ku ci ne ma dëndal la xar te kenn du ko yëg bu dul yàlla moon ak yow ak yàlla kenn du ko yëg ma ne ko ma ne ko léegi nag mu génn lu ma trois cent mille xaw ma quatre cent daal di jël xaalis bi ma gis mu koy joxe mu koy yóbbu du ko yónnee nag ku ci nekk day ñëw dajeeg yow këmpal la dem yoonam te loo histoire boobu moom moo ku ci ne def nekk ci sutura te kenn xamul. papaam yaayam ak jabaram di yaakaar ni pap dina mës ñibbisi. loolu waral xalaatuñu dëjal ko li ñuy xaar kay mooy nguur gi dolli taxawaay ginnaaw bi mu leen wërlee te gisul dara ndax Modou Fall jàpp na ni. état daal man daal seen liggéey ci wàll wi rafetlu ma ko dara dara dara dara dara rafet masuma rafetlu seen dara ñoom man képp koo xam ne ni yow li ngay liggéey da nga ko teg ci kay ak bit su ma neexee ma ne pratiquer ñoo man ci lépp lépp lépp ndax ñun mënuñu di fay suñuy droit li ñu war a def ak ñoom yëpp ñu koy def di jox suñuy droit ba mu mat beteex boo ko jëndee fay nga sa droit be bouchon boo ko jëndee fay nga droit essence boo ko jëndee noonu ñu mat li ñu mat loo warloo ak ñoom yëpp ñu def ko ba mu mat te ñoom gaal réer gaal réer te mënuñu ko jàpp na seet andi ko mënul nekk. yaayu Pape moom li mu jàpp mooy nguur gi dañoo yéex a jóg. Aseen jiite ab kuréelu nappkat ci caaru géej jàpp na ni seet bi dañu cee waroon a boole nappkat yi. li ñu gënaloon daal mooy que ne état bi impliqué wu engagé wu bu baax ci recherche yi tamit boole ñuy seen recherche yi quoi nañu boole ñaari xam-xam yi rek parce que xam nga tey ministre bi bi mu fi ñëwee ba ne bon joxe nañu alerte yi dafa am loo xamante ne dafa yenuwul maanaa te dafa am loo xamante ne sax du wax ndax bato bi nga xamante ne dafa yàpp ay conteneur nga xamante ne bu tardé benn heure rek dañ koy pénaliser kooku du tal di la xoolal ay mool ci géej xam nga lan la qu'on soit sérieux de ce qu'on nañu nañ ñu impliqué ci recherche yi ñu dem seeti xale yi ba keroog ñuy gis li yàlla di dogal ñu ànd si. li des rek kay mooy jàpp ni Pape Diop ak juróomi naataangoom dañu nekk rek ci bërëb waaye dinañu ñibbisi ndax seeni njaboot jóge ci njàqare wi ñu nekk. fu ñu mënti dem. fu ñu mënti dem lu mën rek maay dem lu keneen rekk kay dem ñi ànd ak pap yépp ñii seeni soxnaa ngi fi seeni yaay a ngi fi Lamine ndeyam a ngi fi ay ndijaayam a ngi fi ay magam a ngi fi duudu kon papaam a ngi fi yaayam a ngi fi ñépp a ngi fi soxnaam a ngi fi te ku si nekk fi ngay dem waxaguñ la lu tax nga am nga ñàkk yaakaar ta toujours ben wax bi la dañoo sori ñu ngi ci loxo dañuy ñaan yàlla tey sàkk sarax te di sara xel ah julit nak yaakar rek la am ma ngi dundu yaakar mo am na yaakar de waaw yalla bu yaakar bi tass rek